assalamu alaikum wa rahmatullahi sama gaañi ah yen ñep nuyu na len bu baax a baax man la waa sen xarit mu ah man nako naka ngeen dafa koor gi ma a kawam yéen a ngeen danka danka inshallah rabbi nañ dem rek legi tay su neexee yalla <laughs> so mel nako ma ñëwaat fi ni rek suñu recipe si ñima len am nekk di indil mel nako tay ma am fi ni gis ngeen suma chicken bi mom dama ko parce que foog naa ngeen naka comme su ma dee raxas dama ko de wane mu ngi couple of suma videos yi moo tax tey ma ne jarut may waste time di raxas di season parce que am na couple of videos yoo xam naa leen naka laay seasoning soo seasoning bi na ka naka du ees si yéen mooy suma seasoning bi rek mu ngi nii aussi ko seasoning mu ngi nii yi nii nag dafa dama ko war a posti nii <laughs> moo tax ma tegagum ko nii soo gis ngeen moo nekk nii olpo moo nekk nii moom leen use ni season nii macha allah te dañ njëkka dañ ko njëkka roof ak suñ roof bi dañ ko njëkk a rof ak suñu rof bi ba mu baax after dañ ñu indil leen ko soo gis nga mu ngi nii rof ko rek season ko ñu ñëw bugg a fee toog a macha allah rabbi soo mel ne ma ñëw wan leen ko rek léegi xaar leen ma wan leen lii yi ngeen season naa ko bam ok léegi den ma pare dama ko dugal si oven bi rek nag waaw incha allah rabbi soo léegi ma ñëw nag wan leen suma yeneen ingredients yi ma am su ko defee ñu continuer nag def suñu yaasa nag macha allah. raxas naa ba mu ma limon. ba pare am suma seasoning yi mom la ñew seasoné bi ëpp pousse bi la am fi mom la seasoné roof gi xam nga ne fokk ñu roof nak ganar gi nak roof ko bam baax wala ma roof bi ngi ni bii suma home use la ba pare suñu ëpp pousse bi tamit mu ngi ni ko ñu roof waaw waaw alle ma it ma ut bi fiñ tiba si neexa am léegi nag gis nga naka roof naa ko ba pare léegi damaa ñëw nag jël suma seasoning bi first of all ma def tuuti seasoning salt suy nii rek ma ko kookoo defee nii moom laa ko xoromee nii rek ñii nag yaasa nag bu ne muut nag la moo war doon nii waaw waaw yaasa de léegi ñu ñëw daaji suñ sisine sisin bi ngoo gis ngeen bismillah ngeen naka la tigee ngi far moo tax yi tuuti rek ngeen nak def na cuisine bu baax ta gaaw gaaw nak la def gis ngeen li digante bu 5 8 within 5 minutes cuisine naa fi lii soo gis ngeen li fi nek na nga jël rek nak dugal sa fridge cuisine bu am lañ ko ni wa bu bugguñ dara Paris ñaari kuddu rek moko ko ni so mu ngoog lii moom xam ngeen ne dafa gawal nit setoga togga si weeri koor gi doo si am pour nekk di struggle ah again so gis ngeen fu nek suñ ingredients yi ngi ni ci suñ quick yassa bu ñoo def suñ chicken yassa bi gis ngeen wan na len naka la ko seasoné as well so lagi, dama ko ñew duggal ci oven bi then gis ngeen ma ngi amé fi suma potatoes be potatoes la dama ko dok rek yu ndaw yi then ma am fi ni tamit suma virgin oil am fi ni tamit suma olives ak am onions bi ni di eggs la moom laa ni fii nii dama ko bahal pour suma peree rek mun colvin si kaw lii suma onion si dama ko freñ naa ko ba pare anyway always my favorite which is the white and the red then fii ma dog carrots as well too. rek maa ngi teg fii nii suma pot as well so léegi suma maalo bi as ok xaar ma woon nañ bi ba pare gis ngeen fii maa ngi am suma tomato cherries suma sweet peppers cucumber and then a little bit of dis la am lifin mom dafa sax dañ ko see tap tapal ko ci nonu rek waaw wa sama gaay gis ngeen fu mu nekk dugal na affaire bi ni nga ni la ko def so dama ko def ni so léegi dama ko bay mi cook ndank ndank ndank ndank den afta dama ko bëgg roast comme mel comme ko roast rek mu ñor ba yëpp ñor afta den ma gëné ko ma grill ko ci kaw den afta na defaat seasoning ci kaw as well tuuti rek mu em rek so ma yëgum ci oven bi dama ko def rek lu mel comme yaasa rek loolu laa fi bëgg a paaj ba toog waaw yaasa bu healthy bu amul diw bu em rek waaw ne laa leen wan incha allah rabi process suma organisé ngi nii def ma si dara soo léegi suma si ni sol bi rek laa see sotti nii moom kese kese kese dem <coughs> after ma mix ko léegi fi mu nekk nag xaaral ma def nag suma cuisine bi mu nekk nag damaa ñëw dog suma am lifin bi li ma ko defee mooy gis nga dama koo toppane ni nga ko defee di ko def ni zigzag ma day na ngay gis gis ngeen fu nek dama don slice suma defe ne gis ngeen lii ko dogee mang len ko wan zigzag bi rek nga paka bu sew rek diko dugal diko gene and then after tamit ñu am def tam suñ cucumber ci di pour har ko décorer ci kawam rek la mu jox ko am rafetal <laughs> hala rafetal rek am you waa suma gaañi aku ne ko ne ah suñu yaasaa ngoog ma ne ko suñu yaasaa ngoog gaaw ba bu a dee ah du gis ngeen nag lañ ko expressé e. so mu ngoog so gis ngeen nag tey nag lii laa leen amal fii yaasa bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw waaw ñu teg suñu whole chicken bi si digga bi def nii suñuy affaire xar ko ñam-ñabal rek yéen a ma gën xam so mu so suul yi moo nekk suñ ah yéen di leen wax ne ne leen dem ndogu ah machallah machallah so menet comme que ma ngi defar yi rek xaram indi ko rek ko ak waaw su ko tamit ah may lolu dal so mu ngok kon jere ngeen jef thank you dina len gisaat inshallah rabbi si benen am naka lañ ko dé sax si benen video ak suñ benen recipe Ramadan recipes yi soo xool leen chicken bi nag dafa déggandigal nag gi nga fu mu toog wala toog rek waaw moo gën a rafet de waaw moom dafa déggandigal tam nga korosente tànkaam yi. Hmm. su <laughs> naa leen gisaat kon ci kanam incha allah rabbi ci beneen vidéo. bye